gouverneur sant nañu bu baax a baax ci jataay bi nga xam ni li mu wax ci sëriñ bi léegi yàgg na waaye lu baax boo ci nekkee doo doo doo ko yëg ndax euh, la tax nga di ko def yéene ji ngay jiital ba di ko def loolu mooy tax li la li la yëngal ba nga di ko def moo tax li tax ngeen jóge Louga ñenn ñu jóge Kébémer fekk si ñu nekk Daaru Muxti ñu ànd liggéey bi yéene jooju ak pas-pas bi leen tax a jóg loolu moo tax ñu yëg coono bi ñu itam nag loolu moo tax ñu yëg ne euh, mbooleem kàddu yi ñu fi yëkkati te lenn lu ci nekk am pas-pasu defar rek moo tax ñu di ko yëkkati kenn ku ne wone ne incha allah lu ma daan def dinaa ko def dinaa ko yëgal samay kilifa su fekkee ne weesu na ma loolu mu nekk loo xam ne bu ci dara dolikuwutoo di doy na ndax mbir mi dafa nekk loo xam ne kenn ku ci nekk da nga war a barkeelu waaye gëm nañ ne suñu borom dina ko jagal waaye mu mu jagal mbirum waa ju baax nga dugal ci sa loxo ñu boole la ci loolu dafa am solo ndax loolu yëpp taarix da koy nettali benn ñaareel bi itam mooy nit ki dana ko jariñoo tey ak ëllëg te gis nañu bu baax ni nga xam ne ni nga taxawee eh, jataay bi ni ko jiitee ak ni nga xam ne ni nga ko tëjee te mu nekk loo xam ne eh, rafetlu nañ ko lool defe naa ne. Euh, préfet Kébémer ak ak su euh, sous ak gouverneur ñoom ñëpp xam nañ ne euh, li nga xam ne liggéey nga ko liggéey bu rafet la yàlla bi nga xam ne nag moo mën a sàmm yàlla na la sàmm te dolli la kattan dolli la itam nag ak yëkkatiku ba nga xam ne liggéey bi nga xam ne moom ngay liggéey ci réew mi sunu sunu borom gën li may ay ay ndax te nag loolu itam buñ ko dee wax du ñu fàtte mukk ki nga xam ne moo di président de la république ndax lépp lu ci waaye di def lu nekk su fekkoon ne du woon moom du du duñ ko def ndax it mooy ki nga xam ne mooy borom kër gi moo leen moo leen moo leen di liggéeyloo mooy ki nga xam ne kii itam moom la ñuy déglu ay xalaatam kon nag jàpp nañ ne li nga xam ne njaboot gaa ngi koy def ñun bu ñu toogee fii xam na nañu ne euh, xalaati sëñ sëñ Abbas la ñuy indi euh, bëgg-bëggu sëñ Abbas la ñuy wut waaye ci wet gi ci desit gëm nañ ne yéen itam noonu ngeen di liggéeyee ndax loolu mooy tax ñu xam ne président moom li ngeen def jubu na ko ministère yi dox seen digganteeg moom it jubu na leen loolu moo tax ñu ngeen mën koo defe noonu kon moom itam faaw ñu sant ko gërëm ko gërëm ñi nga xam ne mooy ñu nekk ci ginnaaw premier ministre ñoom ñëpp te ngërëm li defuñu ko rek ngir yaakaar ne suñ ko waxee dina yombal lii ñëw ci kanam déedéet lii ma wax moo tax pas-pas bi nga xam ne moo ñu fi dajale te kenn ku ci nekk ñëw teew ngir bëgg wane sa sa Pastef loolu la ñu xam ne mën naa defar lépp ndox kenn ku ci ne li ngay wax su fekkee ne loo mën a daal di sottal ci saa si la dana sotti waaye nag yàlla mi nga xam ne moom lu yomb moo koy yombal te lu lu am mooma ñu ngi koy ñaan kenn ku ci nekk yéen a am mu taxaw ci ba ba àggale ko bis bi nag di bisu borom Daaru Muuti ak Serigne Touba euh, wax naa keroog ci CDD bi ma ne leen naka jekk ku fi nekkal Serigne Touba rek ki fi nekkal borom Darou Mouhty daf la yëgal ne la ñu ngi réunion bi nga xam ne moo jëm ci màggalu daaru Mouhty noonu la ñu ko defee ak Serigne Mountakha ren jëlee ci ci CDD bi ak ci CRD bi yëpp ndax fii moom li fi nekk mooy ndigal moo fiy wéy Darou Mouhty ndigal moo ko sos ñi fi nekk ci ndigal la ñuy wéy njaboot gi benn baat la am Serigne Abbas moo ko yor kon loolu mooy li nga xam ne waxtu wu nekk buñ fi teewee war nañ ko yeesalaat ci boppi nit ñi mu nekk bis boo xam ne bii. Euh, fii lañ koy defee ci Daaru Muxti waaye yoonu murit yëpp a ko bokk euh, fii lañ koy defee ci Daaru Muxti waaye jullit yëpp a ko bokk ndax Serigne Touba dafa yaataloon biram boole ci ñëpp ba tax am na lettre bu mu bind borom Daaru Muxti daf ko wax ne ko euh, mboolem koo xam ne da ngaa aju ci man ni ma lay jéggululee yàlla sunu borom noonu laa koy jéggale la képp koo xam ne kii ku gëm yàlla donte àndut ak man li may ñaanal ni ma ko ni ma koy ñaanale ki ki ànd ak man ni laa koy ñaanale képp koo xam ne kii itam aji gëm la te nekkut ak loolu mooy li nga xam ne mooy dundinu Serigne Touba kon bu ñu ko dee defal loo xam ne euh, fàttaliku liggéey bu tedd boobu la euh, ak ak ki nga xam ne mooy mooy mooy léppam muy borom Daaru Muxti te euh, bi mu nee borom Daaru Muxti mooy sama përëgum ndeyjoor werante bi bari ci loolu bu fekkoon ne booba du du du dañoo dem ba àggaat ci moom ne ko. dañ koy werante ndax lii nga ci jublu wala lii nga ci jublu mu lii laa ci jublu li ma ci jublu mooy yow mii di Ibrahima yaay sama loxol ndey jox loolu moo ko moo ko leeralal boppam loolu moo tax ñu xam ne kon li mu am ci moom euh, lu rëy la kon nag bis ba ñu dajee ñoom ñaar Cheikh Mamadou Fadel mi nga xam ne moo njëkk a nekk moo nekk ñaareelu xalifa yi Serigne Touba euh, wax ne nañ ko jox ci nañ ko def ci bis bi ndax mooy nekk euh, bisu mbégte Eh, defe naa ne bis boobu kenn ku ci nekk war nga cee mën a sàkku lépp loo bëgg ci wàllu mbégte mbégtam tey ak mbégtam ëllëg yàlla na ko ci yàlla defal te yaakaar nañ koy ci itam bu baax a baax ndax borom daaru muuti liggéey na ko digganteem ak Serigne Touba Serigne Touba mooy ki nga xam ne moo def lépp ci moom te te te Serigne Serigne Serigne Saalix daana ko wax wax ne Baye Thierno mooy ki nga xam ne Serigne Touba léppam ci loxoom la ko bàyyi woon bi muy dem loolu yóbbaale dañuy ñaan yàlla sunu borom mu am ci ngërëm te màggal gi mu nekk màggal goo xam ne euh, lépp loo xam ne luy lor la sunu borom teggil nu ko mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ñëw ñu ñëw ci jàmm te dellu ci jàmm ñi nga xam ne ñoom la ñu fekk si itam mu may nu jàmm joo xam ne danañ mën a dalal gan ñi nga xam ne ñooy ñëw te kenn ku ci nekk itam sa xol nga ubbi ko te xam ne gan ci xar kanam lay tàmbalee bëgge euh, yëg ne wàcc na foo xam ne moo këram moo këram ñooyam ci moom loolu ñu ko defee rek ni ko sëriñ bi bëggee yaakaar naa ne Euh, màggal gu màggal gu mucc ayib lay doon te bu ñu nattee lu mukk itam ne ni màggal gi àgg na léegi foo xam ne fii euh, rëyaay bi neexatu la neexatu la àpp kon nag nañ ko bàyyi xel ci wet yëpp moo tax jataay bii am ci wàll yëpp nga xam ne luy tax mu mën a mu mën a jag ñoo ñaan yàlla sunu borom euh, borom borom daaru mooti liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba ba keroog bi mu dajeeg moom mu xamal ko ne ko Euh, ndax yow soo demoon man ma des fi da ko doon da ko doon dolli ngóor a booba ne ko ndax soo demoon ma des fii dina dina dinaa ko mën a nii loolu aw xeetu soññeen la waxan da ko ko soññ te wan ne ko euh, gërëm na ko loolee yàlla na ko yàlla defal nu am ngërëm ci biir ngërëmam loolee te yàlla defal nu euh, sëriñ Abbas mi nga xam ne moo nekk suñu kanam mu ngi yokk ko kattan ak wër may ko xéewal yoo xam ne ni mu ko bëggee boo xoolee sëñ bi wii ci seenu wet ni mu ko yëkkatee ak ni mu ci taxawee xam ne kii am na lu yëngutu ci xolam loo xam ne bu génnee ñëpp dinañ ci teg bët te loolu mooy loo xam ne luy wégal borom Daaru ti lay doon luy bégal Serigne Touba lay doon loolu itam nag la ñu ñaanal Serigne Mountakha mi nga xam ne xëy na day yàlla dogal tey muy euh, xalifatu Cheikhul Khadim waaye kenn ku ci nekk xam na ne Serigne Mountakha xolam. waxtu bu yëkkati ko wala nga gis ko danga xam ne ku gëm Serigne Touba mi ngi nii di nga xam ne ko nekk ci yoonu jub mi nii di nga xam ne ku bëgg jubal mi ngi nii di nga xam ne koo xam ne kii li mu bëgg ci doomu aadama yépp mooy yéene leen jàmm yaakaar naa ne loolu bu fekkee ne sa kilifa noonu la mel da war a xoolaat yow sa bopp sa doxin def ko seetu ndax yow nii mu mel yaa nga ca jéem roy ca moom wala meloon yi loolu lu mat a bàyyi xel la ndax sa am kilifa am sa kilifa mu aw penku nga aw sow te ne dinañ daje yaa ngi nax sa bopp te xam nañ ne Serigne Mountakha moom amul lenn nag loolu mu waxoon ci keroog bu ñu njëkkee woote ne ku dem ma ma dem ku demul ma dem loolu moom mooy li nekk ci moom loo xam ne da ko doon dund da koo génne keroog rek ndax war koo génne waaye loolu mooy li nga xam ne moom moom moom lay dund kon nag euh, sëriñ bi euh, defe naa ne xol bu sedd mënut a weesu xol bu sedd te gis nañ ne euh, ñi fi teew ñëpp kenn ku ci ne am na yéene defar te eh, defar gu loolu rek mooy li am solo léeg-léeg li ci des nag mooy incha allah ni ñu ko daan defee comité de suivi bi ñu topp ko benn par benn tey ñaan yàlla sunu boroom képp koo xam ne kii ñëw nga fi booy dellu nga dellu ci jàmm te fekk jàmm ci sa sa njaboot te lépp te te kenn bañ a manqué nag ndax sëriñ bi di sëriñ Abbas bi ñu koy woote ci bëccëg loolu la wax dafa wax ne ku yaakaar borom daaru muuti ak ku mën a doon sa buntu ku yaakaar sëriñ Touba ak diine ji lépp ak ku nekk loola mooy la ko gënal ku mën a jàng alxuraan ko mën a jàng xasida ku mën a def istixfaar ak lu lépp lu waaye man ci lu baax loo xam ne lii day jëriñ aji aji aji aji aji dawlu te mën a jariñ it ñi fi desandi dem loolee euh, soxla na ko na ko na ci ñëpp maase kon nag loolu mooy li nga xam ne moo nu fi dajale woon di gën a feddali su cant di wax ne noo ngi balu àq ñëpp di baal àq ñëpp ndax jataay boo xam ne bii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 bakkaar du la ko ëpp alxuraan lépp ngi ci yàlla na ko yàlla defal di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu